xale tànk yi du ma rek dem waaye arbitre bi kenn xamul li muy def waaw bàyyi leen ñu bëre bu Zarko sax ngi naan bàyyi ñu waay ñu ah. bëre na leen bàyyi ñu bëre ñoo ngi leewaatoo seen loxo yaa ngi laalante mhm. Zarko ngi xool ci tànk bi mhm. souvent mbëri ñi dañuy jàkkaarloo ak yow di la xool ci bët ñi di la xool ci dënn mhm. ñi xool sa ngemb ñi di xool say tànk di xool say tànk di nuyu Zarko dafa bëgg dem di nuy Kandji production loolu moo tax ma ngay tafu ca gauche ba borom entreprise borom entreprise Darou Rahman moom Kanji sama waay la gis nga ay ca ñaari mbër nga ca. maa ngi nuyu Abdou Abdou Kanji. Mhm. ak ñoom Tafa Kanji. waaye di nuyu le directeur général du marché poisson. Wali Ndiaye gis nga Zarko Lamine. di nuyu Mbaye Diop ambulant. ñaari mbër yaa ngi noonu. waaye maa ngi nuyu. Siaka Ndiaye. di mën a suuf moom Zarko préparé. di a suuf ñu ngi léewtoo rek. Lamine xoolal public bi public bi ni ñu nee tekk. tekk rek cokkaas na moom Zarko. à def nga gis flash di tàkk pour immortaliser sa moment. ni ñu koy waxee rek ça c'est la c'est la nekk dafa nekk loo xamante ne maanaam tey culture la. Ada Fass. Mhm. te kaaral bi tey man ci Zarko laa ko doon xaar. Uh-huh. mais Ada da damin doful xam na combat bi li mu laaj. mais Ada nii lay bëree. Ada day xaar xam na combat li mu laaj Lamine. Ada day xaar mais Zarko du xaar. di nuyu sama papa Abdoulaye Ndour père laay yàlla na sa jaamu yàgg. cokkaas na moom Ada Ada cok na. waaye Zarko est-ce que cokk beneen cokkaas bi est-ce que du ànd ak buub ni muy cokk non Zarko mhm. yi dëgg moom mhm. ñaara ngi leewaatoo ba léegi rek Zarko dafa bëgg a dem ah. bëre bëre nañu 4 minutes ah, ah. wala boog leewaatoo nañ 4 minutes leewaatoo nañ 4 minutes suuf moom Zarko Badara Ndiaye Adama Cissé marailleur maa ngi lay nuyu ak ñoom Umar Badara Ndiaye maire de Thiaré Ndialgui ak Papa Ndiaye régisseur yàlla na sa jàmm yàgg ay ca ñaari mbër yaa nga ca arbitre baa ngi wax ak ñoom lii nag mooy avertissement waaye général ci bi eh, Ndiaye jox na leen avertissement Lamine avertissement direct tey avertissement la waroon njëkkee nag waaw bi mu arrêté wax ak ñoom bi mu doon wax ak ñoom waaw Zarko Ada Fass lu waaye doon jaayi tey mu lamb mbëru waa Grand Yoff bi ñoom Café Touba depuis Grand Yoff ñoom gileen direku mbëru Cheikh Sey ay ca ñaari mbër yaa nga ca de Zarko dafa bëgg dem Zarko wàcc na waaye man jàpp naa ni soo bëggee dem da ngay xeex dee ko dem mhm. combat capital la tey Zarko man de Zarko jaaxal na di nuyu sama frère Ismaïla Sène borom jëbel ñaari mbër yaa ngi leewatoo di damante baaraam damante baaraam dóor ko xeex dóor eh, xeex dóor xeex Zarko Zarko Ada Fass Sonko nañ Ada tak na ko Ada Fass Zarko la mi ko Ada am na ngembu Ada koy waaye Zarko bañ na loxo Ada Fass Zarko nit ñaa ngi bëri ci kaw tribune yi ndeysaan amateur yi la miñ toogatuñu roofoo nañ ñaari mbëri supporters yi noo yootuñu per paali lii mooy roofoo lii waaye roofoo ci kaw la nag cokaas roofoo émission per ngañ Zarko Ada ngi bëre caxabal mu mooy Ada ngi bëre Zarko ngi xeex Ada Fass Zarko Lamine. Ada mais Ada jàpp na fu dëgër. Ada fi mu téye baax na de. te Zarko jàppul. Ada jàpp na te Zarko gis nga gis nga ngembali ko defee. ngembali ni mu fu mu téye. Ada a ngi koy dajale. Ada jàpp na waaye Zarko daa jàpp na dajale Zarko. Ada a ngi dajale Zarko. Ah, Zarko jàpp na de. gis nga Ada ngi sori ci kaw. Ada ngi sori ci Zarko Ada ngi sori mu ngi koy dajale. mi ci ciy sori waaye Zarko dafa mel na ko lan ndox ndëgg sërëx. Mhm. dafa mel ni dafa bëgg bu ko jël see nooju ko. Ada jàpp na mais Zarko jàppul. Zarko téye na de loxo ma ngi téye ci wet gi. les sénégalais de la diaspora waaw ah, foofu coup boobu daa mel ne dal na. Mhm. mais Ada jàpp fi jàpp baax na de Lamine. Ada moo gën a jàpp. waaw waaye boo fi jàppee doo taxaw. waaw da ngay dem wuti. daa bëgg mu ngi koy yëg mu ngi day dajale. mu ngi koy door ay coup bopp. day dajale mais coup yi yëpp mënul dara parce que bopp da koy bloqué ak ak loxo bi. coup du mën a normal du mën a saf ni mu waree. mboota ngi fi de mboota ngi fi noojoo ngi fi. wala tegal waaye gis naa ku ñu xëcc taf ko kott ko. mbaa ko mbaa du ko sees gis ah, na ma ngay dajale rëcc na rëcc na na. rëcc na. Zarko Ada Fass Zarko. Zarko borom Grand Yoff. bii combat Lamine. Ada lu waay doon jaay tey mu lamb borom Fass Benteñe. lu waay doon jaay tey mu lamb. lamb na yàgg waay doon jaay lamb na. Zarko fi ngay jàpp baaxul. gis nga Zarko taxawin bi baaxul. Zarko ni nga taxawee baaxul dañ lay taf. a daa ngi lay mooñ di la xëcc. ça c'est le ah, sport de seen nu xañ boppam Zarko. Eh, ah non loolu mu koy mbéjee mu ngi koy mbéjee ginnaaw Lamine. sa c'est le sport de chez nous un sport de combat qui reflète l'intelligence la bravoure mais la ruse bien sûr Lamine deux gladiateurs ñaari champion ñoo ñaari ndaanaan ñaari xale. gis nga Zarko mais li muy mais li muy def nii Lamine wóorul. non ah, li muy def nii wóorul. wolof Ndiaye daal nee na fanaan na ma jarak ja nelawul Ada Fass loolu biñ koy def da ko waroon a une erreur peut porter mais Ada loo bëgg léegi Ada jàpp na action ba ñor na waaye Zarko gis nga jàpp nga kottal gis nga Ada Fass gis nga Ada kottal day dajale waaye Zarko day bañ Ada Fass ah, ca téere yee la téye téere Zarko yaram bi dafa nangu dafa nangu te ngemb lim ngemb lim defar moo baax ngemb bi yaram bi dafa nangu dafa nangu Lamine waaw mu ngay mbelee xoola Zarko li muy def Lamine Zarko Eh! li muy def nii. waaw ma xoolal Zarko yow. li mbaa avertissement du ko ci fekk. Eh, man de Zarko jaaxal na. léegi saaga ko eh, mbotti ba mooy na de Lamine. Zarko ak Ada Fass. Lamine Zarko mi daa mel ni lu wóor la andi tey de. Zarko mu ngi fooy Ada donte nag il mu ngi foowee Ada Fass wala muy foowee boppam mu ngi foowee lu ko mën a yàqal lu ko waaw li may une erreur peut porter préjudice mën nga def erreur ndaw mu yàqal la waaw mais Ada dafa téye te liggéeyul looloo de concentration la combat bi laaj la père père Balla daan na ko daan na Zarko daan na la daan na Zarko daan na Zarko daan na ko jël bu rëy daan na Ada Zarko daan na ko jël bu rëy la troisième victoire oh. Zarko Zarko bu leen sànni bu leen sànni mais lii du yoon bu leen sànni bu leen sànni supporters yaa ngay sànni Seysa les supporters daal oh dinañ mbër bi Lamine. waaw dinañ ko ko dagg Zarko daan na Ada Fass Zarko daan na Ada Fass jël ko amul warante. Zarko daan na Ada Fass see Lamine. foowee na ko daan na ko daan ko. jël bu rëy laa ilaaha illallah. foowee na ko. daan ko da nga wax wax bu am solo. Mhm. xaw ma ko wax. waaw xaw ma père waaw nga ne Ada Fass. Mhm. bu perte combat bi dana am ay maa ko wax. waaw critique yi Lamine. dana am critique yi dina am effectivement dina am. critique yi dina am. lamb du foo. lamb du caaxaan fa ñaaw. xam nga mba dañ koy waxtaane Bukar. Mhm. xam xam nga mbalka waxtaane ko. xam nga mbalka maag dama ko jël solo nga wax. dama ko jël mu ne ma Bukar lamb du caaxaan. da nga wax ma noté ko. doon xaar victoire wala défaite. wala défaite ndeysaan. quel que soit mais loolu noonu lu am solo la nga wax di nuyu sëñ Modou Ngom borom boobu sama xarit mhm. lii lu ñaaw la lu ñaaw la mais lii lu ñaaw la ah, lii garaaw na de garaawul lii day yàqal mbër mi garaawul garaawul day yàqal mbër mi garaawul garaawul ndeysaan Lamine garaawul oh lamb Zarko def na Lamine dina jaloore Zarko keroog dañ tegante waaw mu envoyé ma vidéo boobu mu ngi Gambie waaw ma ne ko ah en tout cas de ki ngay bëreel drapeau Matar Ba waaw mu ne ma Boucar combat bi sama bakkan laa ci teg ndeysaan ne ma parce que comme sama combat bi passé damaa bëre jël lamb ji foowee na ko daan na ko Matar ba seet ma yëkkati xaalis bu bëri may ma ba pare recevoir rat ma bureau mais nañ ñu dellu moo tax combat bi sama bakkan laa ñu dellu si ci mais lës ma ne ma ba géew ba géew ba géew mi ngi noonu di ñëw. mu ngi noonu moom Zarko day jëli trophée bi. mi ngi noonu di ñëw. Beuz a Beuz a koy andi noonu. ay Beuz mënoo jaante ak doole dañ lay ëpp doole. Beuz Beuz amoo doole. bul buuxante amoo doole. costu ça bouge pas. waaw. xoolal da ko fooyee ko. per Zarko maa ngi koy wax sànq ma ne mu ngi wala mu ngi foowee Ada Fass. mu ngi foowee Ada effectivement foowee na foowee na ko. te waxoon naa la waaw xoolal xoolal combat bi waaye Zarko ngi noonu di ñëw. xoolal xoolal gis nga. Zarko daan na Ada kotsu ban jàngat nga gëf nga gis ci combat bi ban jàngat nga mën a def ci combat bi entre Ada ak Zarko ñu jàppoon ne Ada Fass moo gën a nekk xale moo war a ëpp doole moo war a ëpp fraîcheur. laa ilaaha illallah waaw lii mooy njiin. waaw da koo dóor njiin mu jaaxaan. waaw lii gëj na am ci làmb. gis nga. no da koo njiin la ko dóor. njiin gis nga mais souplesse. waaw ak doole. souplesse am na. endurance vivacité am na. résistance rapidité am na. waaye ngembu Ada Fass tamit bokk na tey ci li ko andi ngembu bi ñu ngi koy